yàlla tabal na ma ci xolu ku texe kon ku ko bëgg texe nga nit mënta texe di bon te comme bind na loolu rek li ma xam foo nekk señ bi ngay yëg mu ne yàlla moo ma tabal ci xolu ku texe dafa bari dafa am relation yoo xam ne ci relation ci li ngeen di def rek la seq ngeen seq boo waxee xolam sedd bu amee lu lay jox jox la bu daanoo daanu waaye amaan na relation xam ne nag relation personnelle la danga seq nit ki te loolu dafa dox sama diggante moom yaakaar naa nemmiku naa ko ca barabam boobee ñaari yoon wala ñetti yoon yoo xam ne dem naa ko seeti ko ca ca ca place ba néew na it may def benn jataay te te te wóowuma ko téléphone wax ko ko moo tax bi mu waxee bis bi maa ngi yaakaar ne man Tuubaa juddoo fi laa dëkk waaye fàttaliku ma nag fu ma ko génne di ci dem fenn ci bis bi ndax la ci sama kër kii sama gan la bitim réew la jógee te teewul fa lay yendu bi jóg jotee dama ne ko solal su mbubb nu ànd dem ndax jaral na ma lool lim def am këru Tuuba Tuuba dafa yàlla ma def ba mu nekkee ca géej ga yasir rujuan li qini adal wara wal tuddim lii sama iskaana ñaan boroomam Tuubaa doon mujj dëkkam ñu baree ko bëggoon ci nit yàlla ñi yaaye yàlla sëñ Tuubaa la ko sedd sëñ bi daana wax ne li tax ma bëgg Tuubaa mooy sell la dëkk gi fi nit kiy dëkkit nag dafa am leneen lu ci suñu borom def ñëw gi siyaare day tax a mucc ñëw gi dëkk day tax a mucc ñu denc la fi day tax a mucc kuma ma nang ko muccal ku ma siyaare na ko muccal ku dëkk ak manit nang ko képp ku rob ci sama dëkk bi nang ko na ko kon li tax ab taalibe jaxasoog sëñ bi yépp sëñ bi ñaan nako ci pàkk bi di ci Touba mu tan ko yit mom mi yalla may ko mu sanc ko ci wër wo xamné mu safar sëñ Touba nee na ci yalla mak mom day double te samay pay ci wër wu téru wu nek buma nekké ci 10 20 la jëm ak man waaye bu ñëwé ci safar na da koy gëna yok sama sama toni wara a ya fi iqdam xayri wala bada wa fi kulli shahrin zaydu rabh wa fi safar yàlla non la nekké seen bi fi ne moy wër wu teru rek bu ne ko am nga 1000 dolli naa ci 1000 la wër wu ñëw nonu day yok lool la yeggé ak seen sun borom ci ay pay nga xamné ne duutu dog nga xamné payu yàlla duutu dog ci seen bi seen bi neena wasala li mu xal jazaullah muxalladan bi qadri saatillah fayu yàlla gi agsi na ci man ba noppi toll ni yàlla sax dàkk duut fi jóg maanaam nga xam ne li sëñ bi am fekk jant baa ngi am asamaan si di am weer wi di am mbirum sëñ bi di sax du luy jeex sëñ Tuubaa yorut yorut luy jeex yow yii ñu jàpp ne moom la sëñ bi yor du yooyu ndax lii mu defoon tey bañ koy màggalal ku jëkk mosu koo def te ku mujj duutu ko def fukki fan ak juróom-ñett ci safar gis nga bis bi ñu sañ ci kër gi tay aljuma ji da Sëñ Tuubaa mujj a tàggoo ak njabotam 9 août la dajel 1895 di aljuma ca Mbakki bayari bo leen de gëstu xam ngeen ne 9 août tuba bi kin mujj a ci réew mi yew nañ ko ba takkusaan ñu door ko faat 10 août ñu joxe ordre ngir ñu jëli Sëñ tuba ak 250 espèces yi ak 4000 cartouches dëkk buñ ko fekk nañ ray dongay ray jurgi taal dëkk bi jàpp sëñ bi indi benn muy dund baa mu wàcc ab liggéeyam li tax loolu amul attaque boobu amul borom daaru bi mu demee gisanteeg gouverneur général tam ne ko yónnee woon nañ ci Ahmadou Bamba di ko woo moo ko wax ne ko gisuma ku fa ñëw mu ne ko yónnee woon nañ soldaar yu ko jëri waaye kon nañ télégramme ñu xaar moo tax ñu xaar sëñ bi Louga jeewal campement la woon bi sëñ bi déparé la ñu daje ak tubaab yi sëñ Tuubaa ajjuma jooju la taalif xasida gu ñu wax xamitu a daral muy bisu bi ba mu jullee tisbaar ba noppi la ko yonent bi feeñu na ko imshi wala taxsal xarar mën ngaa waaj nag te ñëw dem bul tiit dara senge nañ la ba mu jullee gee ba noppi la toog ci buntu jàkka ji doom yi wër ko soxna fat ja ab taawam cheikh mahamadul moustapha cheikh mahamadul fadal cheikh mahamadul lamin baara soxna mariama kunta soxna mariama kunta moo sëñ baara ñoo nampandoo ci soxna awa busoo du sëñ baara ndax sëñ baara sëñ falloo ko mag lu bari 88 ak 91 bi soxna Aminta Lo di wàcc ab liggéey sëñ Fallou booba magla la ndax mook Cheikh Mouhamadul Moustapha juróom ben weer ak i fal lañ magante waaye soxna Mariama Kunta la sëñ Mouhamadou Lamine Baaram nàmpandool booba ña nga fa Mbakke ba Mbakke bari booba mbooloo mi bari nañ ba bu ñu séddale reer timis lañuy tàmbali buy julli fajar kon taalibe yi bari nañ bi sëñ bi toogee ci buntu jàkk ji waxtaan ak ñoom lam jeexale wax ji dana leen sama boroom dafay indi yan bopp ku ko mas na jàkk romb say wóom yan boobu nag laa bëgg na dënkul ba àdduna bépp seen ko te danaa ko yoon loolu la mujj wax ñoom fatu julli fajar tàggutoog borom daarul maxti tasanteeg mu agsi muy bis bu yéeme nag bis bu daw yaram bis bi tey ñuy rey nag eh, di xéewlu ñu ne bis bu sant la bis bu berne la àdduna bi riir mooy bis bi kër sëñ Tuubaa tase woon bis boobu ci la tàggatoo tàggatoom bu yeme ba ndax bi mam di ko tàmbali nettali Jibril la nako duggu ci keur gi arab na señ bi taxaw borom daaru naan bama ba dembu señ bi ko tap tapal nako Ibrahima dara mutuma nettali ndax dembu ci ngoon ba nga taxawé tuba bi ak ceddo yi ci detti mbéeru janji ba xorondom yi don dox ci sa kaw tanki mang koy gis yoral ma dogay fo foo ma leen mën a rek daal di laaj dem jewal a'unullahi la lañ ci tegon degal yu sëñ bi jël loxoom teg ci bopp Cheikh Moustapha jël loxoom teg ci bopp sëñ Fallu ne dénk naa ne yàlla ak seen bàyyi Ceerno na gees borom daaru mu toll ci fanweeri at mu ne ko rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom daal di war awnullahi moomee jëm ci ñooñ ku a jëm ci ñoom say bokk ñàkk nañu la daje gi a dajeeg nasaraan bi ñu ngi daje jeewal ñu bari xam nañu ko ñaari xew-xew fa am sëñ Tuubaa dafa wax ne sama maaru géeg fas wi de bi mu ne tall ci yéeg montagne bi iblis ci boppam la seen muy xawee ko jëm boppam di takk ay jajjam naan menn mbër moom ma sa tax a jaral jóg amut waaye kii moom maa koy songal sa bopp sëñ bi ne ma it maanaam ko yàlla doy na ma ci yow rek hasbunallahu wa ni'mal wakiil nee na foofee la arrière dal ci samay tànk detteelu ma jog ci doxam mu yuuxu na ma booy tegg sa tànk ñuy tàggoo loolu moo indi ayesa min ni daa inde jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaa wali naajaytuhu bi yaa nasiru yaa wali ka faytani iblisa inde jeewali boobu sëñ bi mi ngi mi ngi wérd inna waliya laha lazi nazala alkitaab huwa yatawalla saalihin ak yaa wëli yu yaa nasir ñaari tur yooyu la sëñ bi doon wér bi muy dem jawal kon bi mu yégee ci montagne bi kon la maaru gé fas wi génn la seen iblis bi mu ci xur wi nag la fekk tubaab bi yëpp serkere daa tabbi rek lal der bi bi mu kabaree tubaab bi yëpp dañoo jàpp ne day joxe loxoom maanaam comme comme xamuñu julli ñu ne ah, moom kat joxe na boppam kon coono amatut ndax ginnaaw dugg na ci suñu biir rek aji loxoom mooy maa ngi nii jàmm laay wut fek señ bi day julli señ bi julli di selmal bim noppé lek l'éclair mo ñew ci mom na jot nañ ordre bul yend bu fanan señ bi nako ku leen jox ndigal mu nako borom dar señ bi na accam kako sak sak ma digal ko mu jaamako mu lank digal mama diko di ko jaamu moo jox digal na fanan xolal ay soldat wër la yori fetal jot ordre nga ne ci seen biir ñu jot ordre bu mu yendu nga ne day fanan li tax señ du kenn te yi ñukoy nat du bi dafa caa waxoo ji dana law laa xawfu bayxa dunya bil axirati la qaatalum ahlu badrin ayaana adduna de bu ma rëgatoon tagg yu bañ naan sëñ Tuubaa jeexal tubaab ya jeewal ahlu badrin dañuy faagaagal tubaab yi waaye taggu adduna wi laa bëggut seetlu loolu taggu adduna wi laa bëggut gis nga fi sëñ bi tàmbalee wuuteeg ñëpp la ko taxoon a jóg mooy liggéey rasulaay taggu adduna wi laa soxlawut mu julli noppi fëggal leen boppam tàmbali nos asma ahlu badrin ñëw yendu kokki ñëw kokki dafa rañaan ñëw yendu kokki rañaan ci guddi gi fanaan si yandu kon 12 août le sëñ touba dem Ndar di ñaar fukki fan ci wéru safar bisub alterné waxtu tibis le sëñ touba ci ñu téyé ko fa 40 jours yu manki ñaar ñaar fukki fan ci wér wi la ñew di 10 août do fukki fan yi jeex wéru gamo wi téru ba dess ñaari fan muy alkhamis ak aljuma ñeen fukki fan yu manki ñaar le sëñ touba def Ndar lo xalaat nak dana fa jëlé bakkanum ni def nañ ko Ndar lañ ko jëk boole gaynde ci jardin des bo démé tolu buur gis ko ta bobu liñ ko doon signaloo moy bayyi joxe asaka tey fay lempo ñett ñi jëkk a lànk gaynde gi daf leen a lekk ñu soboote diine sëñ bi gàntal kero bi ñu koy dugal ci kaaf googu sëñ Tuubaa da doon arrière maanaam bi ñu koy bës di ko bëmax sëñ bi day mel ni kuy baj baj ñuy reetaan naan dafa ragal sëñ bi nee na booba li tax may dellu ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne ma ning ma ma ñëw may xaar yonent bi mu njëkk a tabbi ndax wa man takun bi rasulullahi nusratuhu in talqahu l usd fi ajamiha talimi wa man takun bi rasulillahi xidmatuhu mu saaxibu siddiq wal ixlaasi wal xasan fala yaxaafu wala yabi wala zamana isil wiqayatu tugni anil kinani bokkul ak ñu atte ko 5 septembre denc ko ba le 18 bi ñu ko atte 5 septembre ba le 18 kenn xamul fu mu nekk du Cheikh Ibrahima Fall bokkul ak tontu lim tontu bi la góornóor bokkul ak julli gi mu julli bi la góornóor julli gi mu julli bi la góorloo nga xam ne diine moo ko jaral bakkanam ak naafila 45 minutes ci noon yu bañ ko fi tudd yàlla loolu war nañu jànge ci ne afnal xayaata bi ma yurdi illah wa ma jaa rasulu bihi mafrudan wa masruna suñ tubaab caaxaan taxu ko jóg li ko tax a jóg mooy yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax kàbbar ci sa biiri noonu di naafile manoon ngaa jàng xuloo sabra bi falax manoon nga jàng xuloo sabra bi nas wala inaa tey naakal kawsara gàttal ko mais baqara al imran 45 minutes nga taxaw ñuy cercle la te Gaspard sëñ Moodu Mamoun Ñang moo ma nettali ne ma benn tubaab moo ko wax ca kër ma surang surang ca ndar na ko moo wax sëñ Abdou sa bàyyi sëñ xaw ma lu ko yàlla am waaye jaral na ko na ko man mii fekke naa ba bi da góornóor daan na ko ma ci yéem ba mu ne asalaamaaleykum ba gestu na ana ko woo ci yéen kenn taxawut ci bureau ba nee na ñëpp génn loolu loolu sëñ Moodu ma ko nettali nee na tubaab bi ko nettali kër sëñ ma surang surang la ko nettali ñëpp a daw génn ah fa haysuma taxaf ilaa ragal ahad yaxaf ko min xaw woo ko la ahad sëñ Tuubaa nee na mu sax ragal yàlla toll lu du yàlla noonu lay ragal ba ca des te toujours may wax ne Sénégal war nañ cee góorgóorlu tey bu dee football boo demee am na meilleur joueur am na maire buteur am na meilleur gardien boo demee ca làmb ji am na roi des arènes loo gis rek am na meilleur doon me roi des arènes teewul làmb ji amaat yeneen yeneen ndax mën a bëre meilleur meilleur bi dàq bëre ak mën a bëreem li koy feeñal mooy fekk ci làmb ji ay mbër waaye juróom benn fukki safoor bu ñu bokkoon benn biis it ku ne yor permis kenn nay dawal téeméeri nit bu ñu mokkaloon alxuraan nit Sénégal nag nangu nañ ko dàqa football jiitu ku dàqa bëre jiitu ku dàqa fecc jiitu mais ku daq man ci diine moom du nangu te loolu sëñ Tuubaa mi képp leen ko yóbbee bu doon ne sëñ Tuubaa ci 84 yooyu fa daje woon sëñ Tuubaa daa dëkk Burkina Faso kon dañ naan que dëkk Burkina Faso moo toroxaloon tubaab bokk gi fii tax woon ginnaaw si Amadou amul ci Sénégal wala ci Afrique de l'Ouest ndax ñun ñun convoqué woon 84 lañ te 42 yi dëkk Sénégal yi ñu si yëpp ci sous-région bi lañ dëkkoon tey Afrique ñëpp a waroon a maase màggal bis bii ndax mooy bisu indépendance ci nit ku ñuul moom boppam kenn nawloowu ko woon ndam ndam lii lislaam am ci ci Cheikh Amadou Bamba nit ku ñuul mosu ko am xoolal keroog bi mu taxawee kanam bureau góorloo ñu ñu ñu ñu convoqué 83 yëpp fekk na kenn kuy toog toogee ni ku dul julli amul ku ne da toog nangu nañ ca lañ leen di wax amul labbayka amul naxal amul présent amul mbakke amul waaw présent rek lañuy ñuy wax sëñ mu mujj ñëw bi mu ñëwee góor lool bi muy wax ak ñoom kenn ngi mu wut a siggi xool ko sab sab sikkin mu ngi tege sa sab bi sab jë nag cal nga wàcce ko sab sab dënn mu wax baatu shirk bokkaale yàlla xanaa mu dabbirul umur la wax keroog maa yàlla xoolal bii baat ni mu kenn tontuwul sëñ Touba na ñokket ñeent fukki at la am boko massa pesse mutul 40 kilo, mës sa sol mbub mam poos bi gor no ne may anaamu dabirul umu je suis je tok mbolo mi cercle ko sëñ bi defa jóg di jéggat nit ñi di ñaadam mi ba fekk gor no fim nek mu jël baram bi rof ko ci jëbi diggante casquette bi ak jebi, diko ko sañaxal naan ko kasabtu mu dabbiru umur xayun la yamut wa sa tamutu incha allah famru ko xarib da ngay katch da ngay katch da ngay katch do yalla koku day sax di wéy yow da ngay fat lolu kat lolu bobu tawhid bobu gëm yalla bobu yalla doomi Burkina Faso defu ko doomi Mauritanie defu ko ab sénégalais moo ko def en tant que Cheikh Amadou Bamba di mbokkum ñëpp hmm? loolu mooy sunu li ñu indi yóbbee ak tardé ak dellu ginnaaw mooy bañante sunu biir ndam lu am ci al gis nga ko bañ na ko ba li ñuy importé sax lañ gën a bëgg ci li am ci réew loolu mooy sunu mbir loo man man alxuraan di dëkk ci réew mi ñu ne nangam fi ne boo gis naa fi ñu ay nit ñu ñuul bu ñuy taj wit ñoo dàqale naar yi waaye du ñu jooy nga gis kuy jooy ngir naar yi alxuraan nit ku ñuul ki moo la déranger moo la neexul moo indi sabotage yi ci magal gi indi yeneen yooyu mais sëñ Tuubaa ndamul ñëpp la mu liggéey liggéeyam bu yàgg bi samaani yaxija jën juróom-ñetti at yoo xam ne gisul doom gisul kenn xusuur yi xallat wala ahlu an yi tafaaraxat li maddaxi ladi anhul mad yu xasiru sama kër yëpp gent na sama njaboot gi gisatuma ci kenn te li ma ko yóbbu mooy tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu téye ko ndakaaru gi ñetti fan yoo xam ne kenn mënu koo misaal fanaan ci xottu bi delee ki ay ràbb di ko jam muy riixe deretam di sottiku onkuut gëññut rëfut bi yàlla yónnee jibril na ko xoolal ma xol bi dana ko ñett laa ci fekk as sabru wa shukru wa rida mu ñëw sant ak gërëm képp laa fekk ci xol bi ku ne xam na ne tàggoog sa njaboot metti na ku ne koo bokkalum réew nag mu mën laa boole gaynde ci biir réew ma mën laa tëj ci kaso bu mel noonu ci biir réew ma boo leen àndee yéenu neen kenn nekku fa luy xew kenn ku wéttali sëñ Tuubaa amul ku gunge sëñ Tuubaa amul sëñ Tuubaa dong nee na guddi gi ma jëkkee fanaan gabon mel naa fa ba wéet naa fa ba mel ni néew boo tàbbal ci bàmmeel ay bokkam yépp ñibbi guddi gi ma jëkkee fanaan gabon te gisuma fa nag lu mooy njàqare gisuma fa ko bëgg yàlla gisuma fa ko koy wut mu sax fa kenn déggul man nga topp taraasu si Amadou Bamba yépp benn taalibe bu déggalu sëñ Tuubaa def ba mu wax ko looy sëggee amul ba loolooy rusé nii sëñ Tuubaa mel ni mu naqaree nasaraan bi bu xamoon ci moom benn bis lu ñaaw eh, yëgal nañ ko adduna bi bu nii leen sëñ Tuubaa bombe nii adduna bi di yëngoo ni ñu amee gàcce ni amee kersa bu fekkoon ne xam nañ benn bis bu sëñ Tuubaa ñaan intervention wala mu saalit wala ñu am benn ndam ci moom àdduna yëg nañ lool juróom-ñetti at di woor ba ngoon di bëgg loolu lekk doo ko am xéewal yaa ngi nii tegate koor yi maa yombaay mi danaan woor ba ngoon amul lum doge xobi garab lay dagg te dañ ko jox ndigalul bu garambaay gi jàll ndox mi képp ngay muuc yàbbi garambaay gi mu di ko def ba koor gi jeex koor ga ko fekkaat benn xaal la yor ko sëppee keneen koor ga ko fa fekk benn ñambi la di ko ŋaraj amul lu mu xëdde ñuy gasi kàmb di ko ca tabbal coono bu nañu di ko teg Cheikh Ahmadou ngir sul mucc nag ndax nee na ñett képp loolu am am ca yàlla daraja ju kenn amul sababu xaybati yi anna allaha araada an anaala minhu jaha maam ci yàlla daraja ju kenn amul loolu mu umpul kenn cay yàlla cay yonent bi cay sañ Tuubaa darajaam moom kenn mënatu ko natt wa nakunu shafian li xaw mi ma ràmm sama xeet koo xam ne nag ngir saw xeet mucc ci coono nga ko defee ci bàyyi sa kër nga ko defee ci xiif ak mar nga ko defee ci nattu ay ci yanu ay nattu nga ko tege kenn mësu koo gis wa nakunu xaaliban fi daw mi mooy diiru jamono it ma sax fi di nekk xaadimu rasul kon lii soxna si def tey ci bis bii nu nekk muy màggal gi di bisum ngëneel di bisum tawfiix nan ci fas fas dëgër te delloo njukkal sëñ Touba sëñ Abdou Lahad Mbacké dafa waxoon ne koo xam ne nag loo ko sante muy yëfam loo ko sante muy yëfam la koy sante mooy sàcc bëggam sëñ Touba boo mayee oto moo la jox xéewal gu tax nga am boo mayee kër moo la jox waaye li nga koy sante mooy sàcc sax ci bëggu sëñ loolu la ñuy sax sante sëñ coow yi nga dégg yëpp attaques yi ni attaqué sëñ bi nun noo war a jëkk a defar suñuy comportement bëggante wóolante yéenante jàmm kenn ku ne lo wax do wor fen bayi wuruj bayi wor sëñ touba buñ defare suñu bop ba noppi rek keneen ku ne ci àll ba bo attaqué ñu mën la wax ak yow mais melo yi ni wax ci biti mi ngi gënoon danoo bañante di waxante lu ñaaw sa teeli bi bu am lu bax koy tuuma ku bi nga ne ay pexé la ah koo xamul ci mom dara na mbiram wóorut digënté bo fekk ñuy and ko la nit la ak mom boole ga yaq digënté ba wax ci mom lu ñaaw te di wala présenté koko ba nga xam melo yu ñaaw yii nag feek meengu am la yàlla waxoon rek bon feeñ na ci géej géej géer yi li ko waral bi ma kasabat ay dinaas nit ñi a ko def kon faw mënuñoo boole def lu dul naka sa noonu ak di wax lu dul naka sa noonu coon coono rek la ñuy jural kon nañ roy sëñ Tuuba irham jamihal wara ki ko wax ku ne yaa ca génne sa bopp waaye kuy mbindeef rek irham alwara moom ku dul yàlla ca nga bokk te ba muy ñaan irham jamihal wara négul ba toog këram féex boobu mi ngi fii ci Daarul Manaan 1903 ñuy bënn ay gaalam di dagg ay sàkketam di wasaare ay bagaasam di ko tuumal ne ko jihadiste nga Mouhamad ibnu Ali Yanqubi di jàng rabbi macha allah xat faja keroog bi mu ne yaa malikal mulki sëñ bi neen suñu borom mboolem malaaka mu teewoon badar keroog dala fëgg na la jógal yaa malikal mulki jooju moo yaa xayu yaa qayum ji rasulullaay waxoon badar ñoo yem lu ci Ahmadou Bamba teg rek defal leen ma ko mu ne irham jami xal wala kon non violence bu dee woote jàmm ci réew mi kenn melu di sa juba ba noppi ñu tooñ la na nga ne afawtu anil aadaay jéggal naa leen am na lekkal boo xam da ko fonk boo xam ne ku ko gis ci lu dul photocopie da nga tàbbi àjjana te loolu da cay jéggale li yaalam kullu man waqafa ala haza rasm ana a haza ruuf afa an kullu man zalama wa annahu la yadxu li zalimin te ne képp ku gis mbind mi ne xam ne man ku ma tooñ baal naa la du ma fayante benn bakkan du ma ñaan yàlla kenn te képp koo xam ne ajuwoo ci man li ma la yéene laa yéene ki aju ci man te yéene yam képp maanaam ku doon ab julit ajuwoo ci man ak ki aju ci man ñoom ñaar laa boole lu ma leen yéene kon loolu mooy sëñ Tuubaa kon nun bennoo jàppoo bëggante yërëmante ndax yàlla noppi na yàlla du diisoo yafalu ma yasha faalu li ma yurid lu mu bëgg a def day def loola te kenn mënu ci daal kon na te gëm yàlla dëgg dëgg dëgg mooy gëmu dogal bari nañu nangu julli nangu koor loolu amuñu problème am jàkka yi ñaata jàkka nekk Sénégal quartier boo jaar dëkk boo jaar jàkka yi ak sooroor yaa nga jolli te jikko yi defaruwul imaam yaa ngi waare waxkat yaa ngi wax comportement yee gën a bon tey foo dem waroo fa fekk bon fa nga koy fekk bu ñu demee bay jàppi imaam yi jaay yàmba imaam yu tëdd ak jigéen ñun warut a tëddal imaam yuy sàcc ana kon lu tane ñi mel neneen fekk kilifa gu mel ni Cheikh ñuy jël kaddu sëñ Fallou mi moom sit bi bi démb ñu ngi jox ko am na wax ju jóg joo xam ne xam naa incha allah jombul bu màggal gi jàllee da ko dégg ku ne ba siiru Sàmb moo ko wax maa ngi war ci Cheikh Ahmadou Bamba bañ dalee wax sëñ Tuubaa lu jaaduwut ak léegi wax ju gën a ñaaw ji amul ci àdduna Ba bu bu bu bu nii nii li ci màggal gi réew mi mën naa tàkk te man bi gis naa ko Cheikh Ahmadou Ba Basiiru Sàmb la tudd keneen njobb la dëkk waaye nekku fa dafa daw mais maa ngi wat ci xaadimu rasul loo mës a dégg ci lu ñaaw lu ñu wax sëñ Tuubaa lii Basiiru Sàmb wax a korow raw kenn mënu koo dégg ci àdduna Sëriñ Sàmb Sëriñ Sàmb la tudd Sëriñ Sàmb Serigne Samb kenn musu ko dégg ci aduna kenn kenn manam buñ ko waxoon tay jii rew mi dun yendu ci jam barke borom Touba manam du wax wax ay contre serigne Touba da demul ci geeg gi wax joju kenn du ko nettali ci aduna barke cheikh Ahmadou Bam lolou nak nun no wara jog mais li toujours nañ defa suñu jikko ba nopi te ñi jité rew mi xamne am rew sa yuy tak ci laal pas-pas lay tàkk gëm-gëm kenn du ko laal kenn du ko violé te ñi ngi tooñ ñu naan cel te ñoom xamal nañ seen bopp ne dañ leen a financé waaye li mën a jur rëy na de ndax moom sëñ bi danoo gënal suñuy bakkan ñu mën koo joxe léegi te man de maa ngi wàcc ci jëmi Cheikh Ahmadou du ak suñu Cheikh Awa Balla boo ko gisoon dóor koy kartus te li ne ci man maa gën a tuuti pas-pas ki murid yi ndax la ma ko mën a déggee sax di ko supporté wóor na ma ne am démb doomi sëñ Abdou Lahad bi ma ko ko dégtalee dafa sànni téléphone am yuuxu ci biir këram doomi sëñ Abdou Lahad la dégg am na koo xam dana ma màggal gi duutuma ci jéem a dara noppi naa sama si yëpp dagg na ndax lii nu mën ko wax sëñ Tuubaa nuy noyyi noonu ak dox ci kaw suuf kon lu xew ba tax gone gu jóg ku ngemb ku bàyyi ko ci àll ba attaqué sañ Tuubaa dëgg la de soxor nañ de saay saay nañ de waaye noonu nañ defal suñu jikko ba bu nu bëggantee daal ba ba ndax bari na benn bari na yenn yuy xew nun ci suñu biir noo koy génne nooy soboote nooy yàq parce que man de dégguma kenn ku bokk ci feneen attaque yoon wi di wax loo wër te wax waaye ñiy wax ci biir yoon wi la ñuy bokk seeni maam dañ naan diwoo ko defar boo waxee ñu ñu nàngam ay xale la yoo xam ne yaruñu leen teguñu leen ci yoon war a jaar kon nag nun sëñ Tuubaa bi ñuy jébbalu nun kenn ci nun kon ne jébbalu gi dañ koy def dañ koy def ay ay amul da ngay jébalu ñu def ko ay carte de membre amul kenn ku ne li la boole ci sëñ yaa ko xam yaa ko wax li ngay yëg ci sëñ Tuubaa yaa koy yëg kon sëñ Tuubaa du ma waruñoo lekk teraangay sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ak i noonam soxna si tey lii mu def nii am na ñoom bu doon ñoom duñ ko def benn baat dong buñ fi dajewoon sëñ baax sëñ Tuubaa baax moo gën kaaraange koy gis ci kër gi pour wi ñu tudd fii rek mën naa aar kër gi yëpp aar ñi ci kër gi yëpp aar adduna bi yëpp kon yàlla fi yàlla wàcc jàmm wacce fi xewal seigne Abdou Sis ku bax nga ndax li nu séré ci yow ñi fan wéré at du dul ay fukkat ak juroom ben nag ay ñenti at ak te nit ñi and bu yàgg mënatuñ ko ndax nit ñi ni lañuy andé ak nit ku am ñu top la ku ñak ñu bala ku wop nu daw la ku deenu faté la kun mere jéemal la bu mënul ci yow dara yàq sa jar yow rek mo programme kon nak and ak nit ci yalla tax lu jafé la way li ndam la tax bañuy ñaan ci xam nga yàlla dana nangu ñaanu ab taalibe wala nit ñaanal nit ñaan nga am fekk du ci ci ku ñaan maanaam kii ñaan lu moo am gëm-gëm ci ki muy ñaan loo maanaam léegi-léegi nit ñaanal nit ñaan nga am du kii ñaan mënta ñaan de kii ñaan lu moo am gëm-gëm ak pas-pas ci ki koy ñaanal léegi-léegi nga gis ku daqañ ñaan ci àdduna ñaanal nit du am da koo gëmut kon te ku ne xamoon na Cheikh Abdoul Aziz Mbacké cëram ak tolluwaayam ak lim doon ci amul Lamine Bara kon lii soxna su koy na def yéen ñi fi teewit yàlla na sëñ Tuubaa xéewal yi ñuy seddale yàlla bu leen ci kenn ëppale nu nu nu nu nu màggal ko ay téeméeri at nag yu tàmbali ren dem ba njaboot gi di ko def ñëpp daje si wane sunu mbégte rek soxna si moo tax nu ñëw ak won la ne jàpp nañu la te won nga nu lu taxit nu nu nu jàpp la ñii fi daje it Touba moom lu ne fi jafe ci màggal ba mu des foo dal waaye nag wuute na it ba tey dal it bokkul nag waaw xam nga da ngay dégg ñu naan ñëpp a yem loolu njuumte la am na ñu agseegun ba léegi kon ñi ñëw ñoo jiitu te Touba lañ jëm si am na ñu dul ñëw ah loolu lépp kon lépp yemul daal nit ki day lii ku ko am xaj na la nga leen woon ban jàppale loolu la waaye ñoom it ñu baax lañ kon yàlla na yàlla dimbale leen taxawu leen suuxat ci suñ biiri xol bëgg seen Touba def ci béréb bi jàmm barkeel ko ni sëñ Tuba barkeele dëkk bi aar ko ci xibla yëpp te loolooy am eh, fay gi fay gi mooy sëñ Tuba daa bëgg kuy defar dëkk bi fi ne lii dañ koy dugal ci sa compte te bokku ci ine moo tax Tuba loo fi mën ci lu bi dafa ñaanoon yàlla dëkk bi jekk rafet kon ku bokk ci ñu ñaan nga nangoo ci yow fi ne da am sa kër ba noppi amaat nag sa bonisu bopp ndax ñaan ngi nangu gi mu ci yow sëñ bi bu sañoon kër yëpp nii lay mel kon ku ko def rek yow bokk nga ci ñaan gi nangoo santal yàlla ca loola nag yàlla kër gi daal gépp noo fi nooy yàlla na ak jaamu yàlla bépp yëngu buñ fi yëngu yàlla na ak jaamu yàlla yàlla na seen njiglaay yàlla na ko suñu borom wattil la ca nag ay këri këri kër ci aljana te nga dund fi nag ba doyal ànd ko kilifa yi njaboot gi yëpp di jaay Seexul Xadiim kon maa ngi leen di balaax wasalaamaaleykum